dugg may Doudou borom baax bi vraiment Doudou man maa ma ñaan sama wolof moo leerul mais Doudou billahi yàlla bay la gudd fan ku la bëgg a toroxal yàlla ko la yàlla koy yóbbu ko fauché fauché koy toroxal Doudou ko la Doudou man dama lay ñaan bu ñu ma la muy sa barki mag sa Doudou ko la doo bëgg yàlla may la ko Doudou bay eh, ma jooy waay sama xol bi mooy fees Doudou bay ma jooy waay barki yàlla Doudou yow